seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé. tàmbali yéenekaay yi ak yéenekaay bii di Dakar Time ne ngalawaay kuy téye Macky ndax nag. lii mi ngi bëgg ëpp loxo ñu ne ko lan si mu ne yëgu leen ko ñu ne ko déedéet mu ne Macky Sall xam nga lu mu def mine Falémé yi ci boppam la jël sans appel d'offre jox ko société turque bu ñuy wax Tosyal ba pare nag faalewul kenn ne lu ko neex lay def ci alalu réew mi ba tax Dakar Time ne nga la waay ku ñuy téyel Macky mi kuñ koy téyel waaye nag. commerçant yi ñoom nee nañ den ko defante bu baax a baax a baax yëral yéene kay bi les échos ina ko jàpp ne Auchan ak yenn xeetu supermarché yi dinañ jóge ci réew mi mardi dañoo am ndaje mu rëy ca place de l'Obélisque woo ci syndicaliste yëpp patronat yëpp consommateur yëpp industriel yëpp organisation paysanne yëpp ngir nag ñu wane seen doole fu si ne defanteeg nguurug Sénégal waaye li ñu sonal mooy lan insécurité ci biir yéenekaay bi la Soleil ministre de l'intérieur ne fi mu nekk nii xeex bi dañ ko yokk bu baax a baax ay commissariat yu bees dañ ko ubbi ca banlieue ba Vox Populi ne fi mu nekk nii police jàpp na fukki woyu ak juróom bande d'agresseurs la ñu woon ñoom ñoo nekkoon ci autoroute Seydina Limamou Laye ak Yaraax di fa def lu leen neex di provoquer ay accident di agressé ku génn ne ci accident nga nekk waaye ca booba Ousmane Diouf bu ànd gësëm yéen kaay bi di Vox Populi ne dañ ko jàmpaaka ci Kër Massar moom mooy chargé administration alliance syndicale santé et de l'action sociale xaw tuuti mu faatu jamono yi nag ñu ngi ko hospitalisé waaye ñu ngi ci wér gu yaramam Mariama Sagna di militante Pastef bi nga xam ne dañ ko boom yéene kaay bi di libération ne yaayu kenn ki rey Mariama Sagna ci mbir mi la bokkoon mbiru douanier bi Cheikh Sakho ba tey ji jeexul 24 heures nañu avocat maître Moustapha Dieng mukk d'accordul ci xaru bi thèse suicide bi d'accord ci tey d'accord ci suba te nag dañuy laaj contre autopsie pour ñu xool mbir mi bu baax a baax yéen kaay bi di laas na douane porté na plainte te nee na partie civil la ci mbir mi nga la waaye xanaa parquet dina ci wax yéen kaay bi di enquête na xaar leen ba dégg parquet ci mbir yu mel nii parquet moom ci mbiru politique rek nga koy dégg mu mel ni dafa am ku ma am ndey ku amul ndey. seetu leen parquet lépp lu mu wax politique laxasu na ci Aïda Ndiongo Fatou Makhtar Ndiaye Khalifa Sall Mariama Sagna Assane Dioma Ndiaye na wax bi sax daanaka mën leen leen wax góor-góorul jàmbaar ngeen waaye nag nañu yem ca lu xew bu ñu commentaire benn yoon politique présidence groupe parlementaire liberté démocratie yéen kay bi ko ne wàdd Cheikh Mbacke Baara Dolli la jox présidence bi mu nekk tànneef bu jaaxal ñu baree bari ndax kooku jàngul tubaab. yéene kay bi l'observateur ne Wade fi mu nekk nii politique dëgg lay def carte Touba lay joué yéene kay bi le quotidien dafa bëgg a isolé Madické Niang mi nga xam ne dafa foog na moom moom Touba ba pare contrôle député Touba yi rax ci dolli Madické Niang ca Touba moom gars yi dañ ko defanteeg moom ba mu saf sàpp am na luy xeeñ de code des communications électroniques yéen kaay bii di Walfadjri ne dañoo jëm ci censure kon boo leen sàgganul élection présidentielle yi dara du ci leer ci biir yéen kaay bii di laas Aly nguy Ndiaye ne loi bi mayul benn candidat muy xool fichier électoral bi mu Ndiaye Cissé bu ONG 3D na société civile tiit nañ lool te na la ñuy contrôler lii di yoo ci biir APR parrainage bi genre première la jëmale ci élection locale yi ku ëpp li nga indi ci ay signature boo sàgganu leen tabb ci élection locale yi Ismaïla Madior Fall ne nay dagg salaire ñiy grève bokk ci sudjus ba pare paralyser lii di justice bi dog bu mu gàcce nee na donte préfet daf leen tere seen rassemblement bi mu nga amal ci ministère de l'intérieur dinañ ko def ala accu jërë ngeen jëf ci déglu ni ngeen di soo jëm seen site de karmatin